ñu jàll ci anniversaire yi bi ñu ci njëkkee bésu Mamadou Diallo la ñu koy wax Xadafi <laughs> mon mari mon tout Euh, Bayou Fatima dundal ba énervé Diallo Djeri de la part de ta femme et de ta famille donc jabaru Khadafi moo koy souhaité joyeux anniversaire happy birthday à Awa Gueye Italie Bergamo 6 de la part de sa maman Amira Fati happy birthday à Mohamed Boubacar Babacar depuis la France à Mulhouse de la part de Ida Guissé euh, de Ida Guissé voilà madame Sarr happy birthday à Astel longue vie à toi beneen anniversaire la donc Astel la ñuy souhaiter soit un joyeux anniversaire et puis longue vie à elle. happy birthday à grand Ibou Ngom depuis Paris longue vie à toi de la part de Cheikh Ngom happy birthday à Moumi Fall de la part de toute la famille nga ne kan sa grand la. Cheikh Ibou Ngom Ibou Ngom donc grand wu Ndiaye joyeux anniversaire kii euh, mooy Fall de la part de toute ta famille happy birthday happy birthday à la xaritu à euh, Tata Fatou Sène la maman la plus adorable de la part de euh, Neyma Dia Ajaratou Fatou happy birthday à maman Astou longue vie toi de la part de Papa Latif et Mam Diara elle fête sa première bougie Elle est trop chou. Happy birthday bébé. Happy birthday à bébé Oumoudia qui fête ses at bi xam naa da nga koo fàtte de la part de Yoro Dia et la et de Mami Diouf Dia depuis Yeumbeul. Euh, happy birthday à Mariam Cissé de la part de sa maman Ndeye Fatou Bané. Je te souhaite une longue vie et beaucoup de bonheur. Et joyeux anniversaire à Aïssatou Aïta Sey, ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tes amis. te souhaite le meilleur de Mohamed de la part de Mohamed Yandé Diop. Happy birthday à Babacar John qui fête ses 21 ans donc kii rakk Kiné John la sama xarit bi de la part de sa ki ne John moo non euh, kii dafa fan buuba en fait Babacar waaw da ko fan moo tax il photo bi la bëgg a posté donc ñu ngi lay ñaanal nga dund dund dundal ba ba énervé comme ni ko nit ci di waxee de la part de sa grande sœur adorée Kiné John et de toute la famille Happy birthday à Elage Dembélé donc fils de maman et Mohamed Dembélé happy birthday à madame Diallo madame Diallo aussi ñu ngi koy souhaiter un joyeux anniversaire bu dee am nañ photo bi et happy birthday à Awa Diallo de la part de Jojo Mbaye rakku Pape Cheikh Diallo mooy souhaiter un joyeux anniversaire à Awa Diallo da am yeneen anniversaire. non. kenn amul Pape Samba am na beneen anniversaire bu ma la yónnee woon de jàllale ko rek jàpp si. donc anniversaire w euh, jour spécial pour Aïssatou Sey ton père waa moom jàll na c'est bon donc joyeux anniversaire à ñu juddu ñëpp tey ci jour 19. Euh, <laughs> à ñu juddu tey <laughs> ñi ko composé ñëpp joyeux anniversaire et puis euh, comme Pape Samba mi ngi bënn sama noppi ñu wax leen rek ba suba ñi ñu solal la